lii moo nekk taxawaay bi nga xamante ne amoon nañu ko tey jile ci doxub ñaxtu bi ñu amaloon boo ñëwee ci yoon bi jógee rond point Jet d'eau ko ca Liberté 5 daanaka kàddu gi benn la acteur politique yi citoyens yi jóge fu nekk am sax ñu jógewul ci ndakaaru ñëpp booloo doon benn ñaxtu ngir ñu bàyyi ñi ñuy woowee ay détenus politiques. libéré les détenus politiques libéré Sonko. Sonko da ngay libéré par la force ñoo ngi leen di ñaan nag si njëkk bisu ñi libéré détention te bari leen ci kaso bi ci condition yu métti parce que xam nekk naa ak ñoom génn libéré leen ndax dañuy jugé bàyyi ma. Sonko kay nañ ko bàyyi rek nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi ma. libérer tous les détenus c'est une exigence aujourd'hui waxtaanee wuñ ko. ñaanuñ ko saraxuwuñ ko c'est une exigence. bokk na nag ci ñi nga xamante ne ñoom lañ ci gën a ràññeeku Ousmane Sonko opposant bi waaye tamit kile di Aliou Sané nekk activiste daanaka doxub ñaxtu bi yëpp dégg nañu seen i tour waaye tamit ci pancarte yi naka noonu image yi fees nañ ci dell mu nekk junni ay détenu politique wala lu ko ëpp yoo xamante ne jamono ji lim nañu leen organisation yi saytu lépp lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama lenn rek la bëgg mooy ñu bàyyi leen war a jeex parce que Sénégal xeex nañu lu bëri pour que démocratie egg fi tey kon war ñu nangu kenn na na naxasal ko moo tax ñu ngi laaj président de la république mu jël ay matuwaay pour que Aliou Sané Fadilou Keita ak képp koo xam ne na la rek ndax politique ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër. am na ay milliers de personnes ñu ngi ci biir kaso yi amuñ lu ñu fay def muy Sonko muy Sané muy Modou Ndiaye muy Pape Abdoulaye Touré muy keneen ak keneen amuñ dara la def ci kaso yi nañu leen génnee. lii arbitraire la lii dictature la nañu jóg ci xeex bi. ñaari waxtu yoo xamante ni def nañu doxub ñaxtu seen seeni kàddu ngir ñu dégg leen lépp ci xeex ngir am liberté liberté boo xamante ni ñëpp ñoo koy daal di dund ci biir réew bu Sénégal te du am benn xaj ak seen ndax loole mën a tax ba jongante njiitu réew atum 2024 ku nekk mën a tànn ci anam yu mucc ayib.